te caatu Fora ak ki nga xamante mooy Alliance Baldé combat bi nag yaakaar naa ne coow mënu koo paase caat <laughs> maa lay fekke baax di la ziare. bisimilah alhamdulilah mina seytaan sant yàlla ñu jëm ci sant suñu di sant mbër yi fi nekk yëpp ak journaliste yi ak promoteur yi. Mhm. yow mii di présenté yëkkatil Mm-hmm. Eh, maa ngi sant yàlla julli ci yonent sant samay ñaari waajur mm-hmm. eh, di sant ñi fi nekk ñëpp mbëri yeeg booy ndawee caméraman beeg bi ak yow mm-hmm. eh, di nuyu sama mbokk halpulaar yi waa Fora bandiraaɓe halpulaar kaltonde ɗo waawi wonde fof bio min mbimaani mi salminimi mi juurimaama ah, nodduma hen hokkomba ngara heen ndu wonda heen allah rokka en ndam quoi e di nuyu waa jàmm gon di nuyu darkindaa aw ma seen fay amuñ seen fay sax laay wax di nuyu jàmbaar yëpp képp kuy jàmbaar rek di yëg sa bopp ne jàmbaar nga maa lay Ngaraxeen moom dégg naa ko lan moola la dugal ci Alliance Baldé borom kaaw yu bari day doore de. waaw li ma si dugal mooy peut-être làmb la rek làmb moom da koy bëggee nii mu demee nii loolu tax ma jëlee ji ko. Hmm. mais kaaw yooyu loolu du problème loolu du danger. Sathies yàlla bis baara yàlla. Sathies 2 de Sathies ko ba mu daanu Ibamar la woon yàggul. loolu jàll na. moom dund aussi tamit. moom kay dóor moom moo moo ci moo lool waaw du problème moom ma jeekoo na ma rey man mbër laa mbër laa opté ragaluma ay dóor su ma ragaloon ay dóor du jël avance. yéen ñaar ku dàq bëre. man. ku doole. man ku dàq xeex. man kuy daan. man incha allah. maa xale bu sant Baldé dëkk Pikine bëgg naa waaw salaamaaleykum. xoolal caméra yi auzu billaahi mina sheytaani rajiim. gannaaw ba mu sentee yàlla julli si yeneen bi maa ngi wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di ñaanal ñu fi teew ñëpp. képp ca la képp gu fi teew rek ca la nga nekk yàlla na lu ci suñu borom doole la ah. di ñaanal soxna Habib xam ne moom tamit jigéen bu mun góor la parce que bu bu bu bu bu kër neexee jigéen la to te bu fecc liir neexee nday jaa jàpp sa mbagg ya ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm may ko njaboot bu barki si barki Seydina Muhammad di ñaanal ñu fi teew ñëpp suñu borom defal leen tawféex mm. Alliance Baldé benn xale la rek war a bëre caatu foora laaj nga ko wax na la mm. buñ ci tollee ma wax la ah instant yi fa lañ toll kay parce que am na fu mu jaar ak caatu rëbës am na fu mu jaar ak nëpp ndaanaan yu bëri am na fu mu jaar ak ñoom duma leen daan leen xeex maay bëre maay duma maay daan ci kàttanu yàlla. mooy xeex mooy bëre mooy duma mooy daan ay kàddoom la. waaw ah, loolu waxu mbër la rek yegg seeguñ ci loolu. lu da daa mën a dóor. Hmm. day dóoraat ñuy daan man de bu ma jékkoon na ma rey man bu ma koy lekk. moo la leen. musuma wax loo xam ne defuma ko caméra yaa ngi fi daa am lu ma waxoon fii laa ko waxee woon. Hmm. su arbitre soufflé. Hmm. barke Serigne Saliou Mbacke bu ñaanu ko te bugguma moom mu ñëw na ma xaar ma ñëw. mu xaar la nga ñëw. bu arbitre bi ma dal si kawam nekkuma ay léetoo cinq secondes dix ko bu arbitre bi wàccee loxoom ma dal si kawam. xam nga lu la fay fekk boobu dal. ñi ma dal seen kaw ñoo ko gën a ponkal ñoo ko doole te bu ma seen kaw dañoo reculer. nee na ñi mu dal seen kaw de dañoo naani kaani. laaj nga question bu am importance. bu fekk see lu mu fekk. wax ko la lu fi fiy fekk. waaw ceeb laaj mburu bi moo nekk fii. Eh, loolu nag du lu ñuy wax. caat noonu ñëwee ci combat bi nii di napp sa bañ a wax nu mu demee nii. no seeke que damaa nekk ci loo xamante ne xama rek wax waruma man jëf moo ma war daa lu may xaar ñun jaamu gën nañ dëkk goxu làmb lañ dëkk ñun buñ génnee maire yi sax dañuy topp ba buntu stade tourné dem syndicat jël li ñuy jël ñibbi <laughs> kon ñun moo tax du du lépp la ñuy wax mais dañuy jëf bu bis baa di ñaan yàlla may ma wér ak wér le li mu wax yëpp bu bis na dëggal boppam mu xool bu yàggee si moom la. nee na bu yàggee si yow la. goxu làmb ba la dëkk jàmm. goxu làmb goxu làmb boo koy wax Pikine ngay wax. jàmm gën amul roi des arènes te roi des arènes mosu faa dugg te mosu ñoo bëreeg roi des arènes dëgg la wala dëgg kon bu fekkee goxu làmb Pikine la fekk baax parce que ñun suñu fiti roi mu ngi xaar bu arbitre bi soufflé man lu may wax dama koy dëggal te moom laay def barke Serigne Sali bu arbitre bi soufflé ma dal si kawam. man am man nekkuma fii di lim limal di bëree di leetoo jëmale suba xale la xale la dafa entraîné ma entraîné bu arbi suulee bu wàccee loxo <laughs> ñu xool kan mooy dem man may bëree maay xeex maay duma maay daan si kattanu yàlla déggoo ma xanaa ay tar tarkindaa ay turkindaa yooyu amul problème gis nga affaire rabbaani dugul géew géew bi man ak caaru fora ñoo fay dugg bu arbi suulee man ak caaru foora ñoo fay des man xam nga la laa gëm fu ñu dajee bu ko neexee fi mu toll nii nañ bëre ba làmb ja man man kese comme li may wax man seul man maay man maay battre score bi foo fekk kañ ko sot amu fa foo fekk kañ ko sot sot soto amul fi man rek maa ñëw ak sama benn booy ñi samay raq lañ kii lañ àndaloon ñëw bi ñi xamuñu ne woon ñi fii laa dajeek ñoom rek nañ ko sot xaw ma nañ ko sot boo gis ñeme amul loolu moo akay dëgg mais leen laa koy dénk rek moom mbër la na entraîné bàyyi li muy fooye lamb du caaxaan na entraîné préparé wu bëree waaye wax ju bëri waaye ay lamiñ du rëy du ay dara xam koy def liggéey moo koy def soo liggéeyul bu bis boo si ko da ngay rus. yemal foofu bala ngaa woote. nee na nga dem wuti doole. ñaari avance laa jël du moom laay préparé damay bëreeg moom la vingt 24 bëree la 17 août kon nekkul moom laay préparé. man boo Niang bu màgge sec boo Niang numéro 2 laay préparé mais du moom laay préparé moo gën a tuuti ci adversaire yu ma jël. macha allah am am am na solo Habib Habib combat bi nan nga def ba taxawal ko bala ñoo woote. waaw lépp Ousin la. ganaaw yàlla lépp ousin la ak Aminata man duma ci lenn mm-hmm. dañ ma naan làmba ji taxaw na génneel xaalis ma génnee jox leen incha waaw ñun nag ay ndaw lañu dañuy jéem rek mm-hmm. ànd ak booy yi pour ñu liggéey ak ñoom mm-hmm. ndax ñoom dañu opté nekk mbër du dëgg ñun aussi ñu opté nekk promoteur sans ñun ñoom duñu dem sans ñoom ñun duñu dem na askanu Sénégal xam ne ñun dañuy jéem rek lu ne laay dégg ñuy wax ndax nañ fexe làmba ji am man maa ngi soog a dugg ci làmb promoteur buy soog a dugg ci làmb sa ñaari sorties yëpp nga def direct 2STV ñëw defal la direct TFM ñëw defal la direct ku yorul xaalis doo def loolu combat Soko Sim ak Serigne Ndiaye dafa avorté nekkul ñàkk xaalis moo tax amul ñi ubbi seen làmmañ yi di wax ci internet bi nañu bàyyi doomu jàmbur yi ñun dañu am njëriñ ci dëkk bi man maa ngi ak soixante employés yoo xam ne man maa leen di liggéeyloo di leen fayal sama bopp liggéeyuma ci état kon na ñun ñi xam ku ñuy waxal ak nan la ñuy waxee déwuma ci nit pour yalwaan ci moom sama ñàkk laa yaakaar sama ñaanu ndey ak sama ñaanu baay ak li may defal askan wi ñu may ñaanal mooy retourné ci man kon képp kuy waxati ci Habib rek bala ngay wax xamal li ngay wax képp ku ma waxal lu ñaaw nag dama lay bàyyi ak sëñ Babacar Si. macha allah borom carré bi macha allah yaakaar naa ne am na solo lan ngay woote. di woo waa jàmm gën yëpp di woo waa Fora ah. Mhm. di Are am tëli karo bi tëli maam jaara sam-sam ah eh, ba montagne di woo Fass Mbao di woo sama yëpp képp kuy doomu jàmm gën ak foo mën a nekk ñu lay woo di woo waa Tivaouane Hmm. ah waa APIX. boobu sama secteur yaay la di woo sama waa kër yaay aw ma seen fay. di woo nag sama mbokk xaal bu laa de waa Fora combat bi seen combat amul xalaat. paay ak ñëpp waaw seen làmb la de. <laughs> billaahi dañuy dem jëli ji ko bu soobee yàlla di woo sama benn xarit bu nekk Amérique Matar. Mm. di ko wax nag billet yi rek laa ko di woo Antisco ah. Eh, di woo Ndar ko sama xarit la di woo Dipin Sissoko ah di woo Yatous di woo képp ku nekk sama waay rek ma yëg na sama waay nga rek ma ngi lay woo di woo Grand Fallou Koundoul. jërëjëf eh, combat bi sa di woo nag Derki Ndaay Seck. Eh, su ma waxee moom rek tëj naa waaw di woo ñëpp na si ñëpp teg loxo. jaajëf eh, ñëpp nag. macha allah am na solo. xale bu géwél bi lay woote. waaw balaa may woote dafa am lu may lancé pour suma écurie bu ma nekk. nga xam ne ay xale ñoo fa nekk. yaakaar combat mënuñu am combat ñu bëgg a bëre. te suma ginnaaw lañ topp. écurie boo xam ne ay xale rek ñoo fa nekk maa ngi ñaan promoteur yëpp. tàllal naa leen loxo waxi naan. wax naa Nimzaat waaw mu nekk écurie bu bees boo xam ne bi mu sosoog léegi ñaari at lay am. macha mais xale ñoo fa nekk maa ngi ñaan gars yi ñu ñëw jàpp si ñu bëree. di ñaanal góor yi suma frère yàlla may ko ndam guy gi suma fereer yàlla may ko ndam. di ñaanal waa équipe bi yëpp ak suñu coach Seydou yàlla defal leen jàmm maa ngi woo borom États-Unis l'international Mourguet suma xarit. maa ngi lay woo nga jàpp si combat bi suma frère ndëri Espagne maam góor États-Unis maa ngi lay woo nga jàpp si bu baax Serigne Khadim borom yàlla rek ay buur maa lay woo nga jàpp si <laughs> sama frère soxna Aida sama yaay bopp maa ngi koy woo mu jàpp si di wax ne am na solo liggéey dafa métti ah day liggéey jeune la di liggéey nañ ko teg loxo ñu bàyyi wax ju sew ji macha allah waaw parce que wax fajul dara jëf moo gën a wóor na ñu bàyyi wax ji ñuy jëf maa ngi woo Isaaxa Diop monsieur le maire Abdoulaye Timbo ak waa Pikine yëpp di woo bale Balde yëpp nañ si jàpp Jacob Ama Babacar Pakola ñëpp woo naa leen ñu jàpp si Alaaji Mbay suma frère. ma duma daan si kàttanu yàlla. jaajëf yaakaar naa ne am na solo man ngeen a dellu ànd ak supporter yi